liggéey bi mu sumb jëm si wàllu assainissement bu Touba Touba sa kanam tàmbali na phase bu njëkk bi si gox bi di 30 gu sexaw ga liggéey bi tàmbali na boo fi accès gis ni barab bi ni mu meloon ak ni ñu ko tàmbalee di soppee xam ni Touba sa kanam farlu na si liggéey bu nu mel naka noonu délégation bu mag moom la Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké porte-parole du xalif général des Mourides àndal ñëw ngir saytu si liggéey bi si turu Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides bi mu ñëwee fekk na fi Serigne Abibou Mbacké bi mii kilifa yi Touba sa kanam ngir nag saytu tolluwaayu liggéey bi ki nga xamante ni moom mooy ingénieur bi yor wàllub liggéey bi di Ngagne Thiam moom nag mi ngi leeral sëriñ bi barab yi ni mu meloon barab yi si melokaan bu jéggi dayo bi ñu ko fekkoon doonoon barab buy taa du ñàkkoon sax mu amoon ay jeexintal si dem bi ak dikk bi ak si askan wi nga xamante ni ñoo fekk baax fii moom nag dellu si na ci taxawaay bi Touba sa kanam am ngir nag saafara ko ba mu sax dàkk toll fii fii bi yam ni li li li ci topp dafa mel ni bi ñu euh, dëkkandoo yi waxee dafa am guy gu mag gu fa nekkoon loolu nag dafay tax bu amee ban dafay mel ni loo xamante ni faaw ñu dindi ko fi mu toll suba dañ fi indi engin bi nga moo fi nekk dana ci gas daanaka lu mat ñaari mètre ci suuf. ñu dog di traité loolu ba pare na daal di nga xamante bi ne ni boo liggéey danañ ko mën a def incha allah loolu loolu loolu la ñuy def moom bu ñu bu ci noppee moo xam pavé la moo xam guddron la lu luñ ci bëgg teg mën nañ ko cee teg ëllëg incha allah ba pare day méngoo ak leneen yi nga xam ne moo ci nekk. ah bu ci gën a yomb pavé moo ci gën a yomb pavé moo ci gën a yomb pavé moom moo ci gën a yomb ah waaw waaw noonu noonu lañ koy def si ñëw rek lal ci kaw lal ci kaw daa daj daa daa di ciy dem incha allah bi nu bàyyeekoo si barab bi demaat nanu fi nga xamante ni mooy Kër ñan fii tamit naka noone nekkoon na barab bu am ay jafe-jafe ndox mi lëmbee woon na fii ñàkkloon tamit mu am ay jeexintal si dundub askan wi Touba sa kanam jóg taxaw tem ngir indi si caafara fii nag sëriñ Bassirou Abdou Khadr Mbacke mu fi teewloon sëriñ Mountakha Mbacke Bachir yëkkati na ay kàddu gis ni kat taxawaayu Touba sa kanam li ko lal mooy jëf ju bari ak wax ju tuuti rafetlu loolu nag lii mu jot a gis si liggéey bi gis ni kat lii de kawe na njortam te nag bu demee dina ko àggale si sëriñ Mountakha Mbacke Bachir mi ko yabal. sëñ Abdoulaye daa jëf du ànd ki wax lii moom jëf la lu ne fàng lu wala walay chaman chamiha kal mushahidi moom jàkkaarloo la moo tax waaw waaye lii doom dal na ma xel dal na ma xel bu baax a baax danaa ko daal leer sëñ bi lépp incha allah ndax léegi lañ fi jógee maag sëñ bi bis waaw ndeysaan xolam sedd na xelam dal na alhamdulilah am na ci yaakaar yéen a juré alhamdulilah li mu ci wax ñëpp dégg ko lam ci lam ci yéene lam ci wax kawe na loolu waaw kay waaw yéen itam ñu ngi leen sant bu baax ndax moom liggéeyal suñu tubaab ñun ñëpp la war ne bu ngeen bokkee ci sëñ bi boo bëgg ko jaayee lépp jënd ko taalibe def ne seen maam bi defoon loolu moom mooy liggéey bi waaw loolu moom yàlla nañ sëñ Tuubaa saxal te dimbali leen ci kattan na leen ci bu baax waaw. dal dal na suñu xel. waaw xel. Touba sa kanam fa yéene wéy liggéey bi ci pàcc bu njëkk bi daanaka lu tollook ñaar fukki poñ si biir Touba ñu nemmeeku ni am na ay jafe-jafe mu fa yéene ko sëkk wala sax mu def fa ay tali fexe nag ba fenn dootul taa lu nu mel nag taxoon na mu yëkkati woon lii di jaayante loole nag ñu koy wéyal saa su nekk ba mën a matal mbëbët yi ngir gox bu sell bi di Touba dootul amati benn jafe-jafe si wàllub assainissement. wajalila